avant mooy doo la fal lu ma neex buuru kër gi hmm. ay mbedd mii ma toog fii rek ba ba ba benn booy def benn dégât wàcc li jënt ko suma bopp hmm? ñii seen miir bi niñ ko fi ko teg du yoon lii suba ma jug li ko ñu wéer ko nële oto yi ñu koy gaare ca xaj fii du place buntu kër gi du pour ay gaare ay oto yii nii kër gi yëpp laa jël en charge bu la neexee jëlal sa temps nga jàll ba première moom jël sama temps bu wax dara bi laay toog ñàkk di la xaar loolu fleur yi di fonk nañ ko noonu sama fas bi deuxième la toog da sa temps loo jël sa temps ngay am problème gisee mu tijji bunt bi ñu ko ŋàpp bu ñëwee bu ñëwee bu ñëwee xam ne carrément moom taar la c'est kon fii la toll kon kii mu ngi yéexantalu ba tey ok caméra bi am na fi sens gardien bi moom ni kii dama koy dàq suba waaw ça va mosul tëj gaaw ñeñ ñu bët ñu ko wérati soo yoon nekkul ci loolu yow yow fa nekkoon ba heure bii. papa damaa damaa damaa biddanti. ah da boo tardé te dama lay part tànn procade ah. mu lay dóor tàngal la ba nga ne ñeneen. dégg dem ci guddi waxtaan nañ man ak waa kër gi man lañ fol buuru kër gi. Ah. man maay ruwaat ci kër gi maay buum maay buum bi. bàyyi bi loolu dañ dañ ko waroon yàgg ak def. Mm-hmm. yow fii yow yaa fi buur. si waaye yow. léegi nag ci yi nag laa jóg. Mm. ci liggéey bi laa nekk contrôler jullux jullux yi teg lépp ci yoon jubal setal leeral. ay bàyyi. waaw yow nag dee teel a xëy si. Mm-hmm. boo góorgóorloo dinaa la fal ministre de set setal. dañ dañ dañ waaye fépp. fépp. ba muy nes nesi. waaw ah. waaw kay defee ko noonu rek dégg waaw te nag su ma nee la objection nga ni validé. validé. objection. yaa ngi guubu bon yaa ngi xeeñ xeeñ bu garaaw. bu sangu suba mën na la sangu. ay ay saa bu ko yàlla jëyee ba mu génn. ba war a dugg fii ba ma woo gardien bii suuf ni ko kii bu mu dugg ba mu ñam li ma ñamoon mu toog ci mbedd mii billaay dina war a gardien bu dëkk bi ma fësate ma noonu kooku dama koy dàq kooku moom fa feelee tous les allah eh, eh, 这个waa wax naa la xanaa maay buuru kër gi. Hmm? à partir d'aujourd'hui bul ubbeeti kenn dégg nga ok dafa naan nga nekk fii ubbiwaat. laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah jërëjëfati Serigne Abdoulaye Diouf borom koy wax jërëjëfati Serigne Abdoulaye Diouf. ay waay yàllaa mën a woo motub jaam waay Père fi nga dëkk ama ndogu mi ngi bëgg a jot yow tamit bu yaay saay saay dama la bëri yéy fa bi ma fësati ay waay yaay xaj da ma fësati sama mémoire bépp dem doomu may ndox moo ndogoo rek ah kon tey ci man nga yaakaar pour ma ndox ndog dinaa la may dinaa la may dinaa la may te yàlla tax ah waaw te yàlla tax taxoo de yàlla tax ma di ko def waaye du sa jëmm ji naroon naa laa dàq waaye du ma la du ma lay indi ci biir kër gi fii di la torturer ah di la mourir loo di la souffrir loo yow ba nga dee ci biir kër gi du ma la dàq loolu laa lay def dégg nga te nag booy maa ngi lay gis ci caméra bi li ngay dugg ci douche bi dafa bari trop. Hmm. te dugg dafa bari limité li ngay dugg ah foos bi dañuy fay ñu koy viré aca xaar ma foofu ah. man nag fi ma toog nii maa fi bëgg a yàgg de maa nelaw rek. borom leer bii di ñëw nii abaa day taxawaalu door a ñëw pour sonal nit ñi. waaye fii laa koy xaar mu ñëw ma gololoo ko muy sone ba sonn du ubbi faa ma def ko noonu moom noonu lay defaatee xaaral. L'altro là. Poi giù giù. Yëgal la ko di gale. mais incha allah tegguma la de. waaw waaw waaw. dedans. damay ubbi ki sonné. Merci, Gogotte. yaa xam ne jox mën nañ fa. eh. waaw. fa ci biir. ndox mi mu ubbil kii defal aja hmm. defal naan ne xam ne maa leen gën a nekk xaj foog nguur gi dinaa ci tiitaru ba doy xamu leen ma sax awa man la sa papa baaxee bu feex doucement mu ubbil la def nga amul tiitaru nguur nguur gi ñu wax rek nga validé def naan ko xewantu ama wàññi la ay pas dellu xale un bâtonnet deux bâtonnets encore. abaa ngay def maa de loolu la ñu fii fii fii fii nguur la. bàyyi la échec ko kon. ñu ngi biir lala. mais mooy fii sonné ci suuru tey kenn nangul ni ubbi. man maa ngi ci biir. pour lan loolu. sama nguur la maay ubbi maay tëj. mais bàyyi loolu fan nga ko teg. ku liggéey ba wàcc sonn ñëw si yàgg si buntu bi nga xam may may ubbi. waaw heure doo war a wàcc doo war a waaye la ko jox pour nga nekk kilifa kër gi. eh ko de. eh ko ci réew. foofu nga ma jàpp ci audio. Hmm. loolu rek ma metti mais dina jeex. <laughs> te bi yoon damaa fàtte sa jabar ji dalaa jiital. noo koy oyo. li nga jàpp baax na de. Ah. yaa ngi seere kër gi. lépp ngi nice. ah courage noonu nga téye kër gi nice. ah cool la courage courage courage. tey doo fi tëdd. yow sama père nga. waaw xar nga. <laughs> père <laughs> waaye. maa la gën a nekk xaj fop fop fop.